dem bay tudd sax ci suuf naan ma boo moytuwul di nga ñàkk sa plateforme yëpp maanaam sama sama sama compte yëpp dinaa ko ñàkk. ma leen ma leen xamal parce que bu demee ba chroniqueurs yi sax dañuy def vidéo góor jigéen ñi dem di di leen envoyé message ba am sañ-sañ di leen menace nga war a xam nag kon réew mi góor jigéen ñu fi bëgg am doole quoi. genre ma leen man nag leen rek laa am lu ma leen wax li ma leen wax leen la ne leen menace ngeen ku dëgër bopp menace ngeen koo xamante ni moom menace bu fekkate ne mën na ci moom dara rek moom kon instant yi waxatuñ ko quoi en tout cas moom mbirum góor jigéen ku ma ci menacé xanaa kay da may gën a yokk courage pour ma gën ko xeex parce que du ma ci mës a dellu ginnaaw ndaxte dafa nekk loo xamante ni yàlla bëgg ko te xeex ko ci jaamu yàlla bokk te pousse pousse dafa xaraam yaa ngi comprendre te képp kuy xeex góor jigéen wala sax foo ko gisee nga fex ko nga nga fexe koo dénoncé wala nga wax ak ñoom wala nga dal seen kaw loolu dafa bokk ci jaamu yàlla te tiyaaba la tiyaaba nga ci am quoi pour ma leen koy wax pour te dire moo tax ma leen wax ne leen gars yi man menace du ma dugg surtout ay menace góor jigéen yu ñàkk fayda yi waxoon naa waaye nag du ko tontu tontu moo ko dafa am si leeral quoi waaw wax naa ko ne ko duma ko tontu bu ma ko namee tontu yàlla na ma safar jël addiya parce que ay pousse pour moom nekk di waxanteeg yoon yu ñàkk fayda yooyu man doxuma ci quoi franchement man maa ngi ci yeneen maa ngi ci beneen affaire quoi. te nag li ma ci gën a métti ci mbir mi mooy carte suñu carte bi mu jël muy carte Sénégal bi.

waaw ba nga xam ne leen gars yi vidéo bi moom euh, dana mel ni contre Barça ak Tenerife parce que góor jigéen yi bu ñu paree ñu ngi may ñu ngi may dégg bu baax dinañ jéem a dislike waaw ñi góor yàlla yi nag ak soxna yu baax yi nga xam ne ñoo seetaan vidéo bi ak euh, kilifa yu baax ñoom dinañ like vidéo bi ñu xool kan moo ci mën quoi waaw góor jigéen nag ñoom ñooy dislike vidéo bi parce que li may wax arrangé wu leen ay góor jigéen lañ quoi mais loolu en tout cas moom loolu laa am lu ma leen ci wax te di gërëm bu baax sama frère Wesso gis naa vidéo bi bu baax a baax a baax.

Euh, Snap ñeneen ak ñeneen ñuy créer ay plateformes yoo xam gars dañ ci dugg di ci am ay page quoi wala ay accès <coughs> mooy parce que yombeewul noonu quoi genre te man xam naa ne man moom duma ragal xeex góor jigéen ci yàlla bokk dafa haram ñi dislike ay góor jigéen lañ. menaces yi nag sénégalais yéen laay waxal mën a jàppale vidéo yi wala message yu baax ñu dem avec des likes ngeen di commenter seen position parce que ñoom dinañ dem dislike de yeen like leen ba mu saf sa ba xam kan moo ëpp doole. kon boo gaay vidéo bi dina ni ma ko waxee dina mel ni comme contre Barça Tenerife ñiy dislike ñooy góor jigéen ñi ñiy like nag ñoom ñooy góor yàlla yi ak soxna yu baax yi waaw gaay loolu laa amoon lu may wax yéen a ñu mën a yokk doole ci xeex bi ñuy xeex yéen a mën a partager vidéo yi yéen a ko mën a like en même temps quoi di commentaire aussi ku ci nekk li nga li nga bëgg a commentaire muy sa avis quoi mooy loolu ci góor jigéen yi kon boo gaay vidéo bi loolu la woon. maa ngi nuyu ñëpp bu fekkente ne wax ji dafa am lu ci dëng sama matadi la quoi bu fekkente ne nag vidéo bi dafa am lu ci jub du ci man ci yàlla suñu borom la mooy loolu kon boog bëgg naa gars yi vidéo bi loolu la woon wasalaamaaleykum wa rahmatullah nekk leen ci jàmm